nun ñi dëgër ci sunu ngëm war na noon nangu ñi seen ngëm néew te am ci lu ñuy sikki sàkka te bañ a yem ci wut sunu bànneex na ku nekk ci nun di wut lu neex moroomam ngir jariñ ko ba mu gën a dëgër ci ngëmam ndaxte kirist musula wut bànneexu boppam loolu la mbind mi wax ne lor yi ñu la saaga ci sama kaw lañu dal ndaxte lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir ñu sàkku ci xamxam xamxam bu ñuy may fit ak muñ ak di feddali sunu yaakaar kon nag yàlla mi maye muñ ak fit ne leen may ngeen déggoo te nekk benn bu yelloog li kirist yeesu wone ba tax nu bokk benn xalaat ak benn baat ci màggal yàlla baayu yeesu kirist sunu boroom moo tax nangoonte leen bay màggal yàlla ni leen kirist nangoo lii laay wax kirist ñëw na liggéeyal yawut yi ngir wone kóllëreg yàlla ci matal dig ya mu digoon maam ya ñëw na itam ngir ñi nekkul yawut mën a màggal yàlla ndax yërmandeem moo tax mbind mi ne dinaa la màggal tey tàgg saw tur ci kanamu xeet yépp mbind mi nee it yéen xeeti àddina ñëw leen bànneexu ak xeet wi yàlla tànnal boppam mu dellooti sant leen borom bi yéen waa àddina te ñëw màggal ko yéen xeet yépp te it wax na ne am na sëtu yeese buy ñëw dina yilif xeeti ñi dul yawut te ci moom lañuy wekk seen yaakaar kon yàlla mi maye yaakaar na def ci seen xol mbég mu rëy ak jàmm ju yaa ci seen kaw ngëm ba ngeen am yaakaar ju mat sëkk ci doole xel mu sell mi yi wóor baax ngeen ba mbaax mën a yem fees dell ak xam-xam ba mën a jàngalante mbir yàlla ci seen biir bu sama kàddu diisee nag ci bataaxal bii dara taxul lu dul bëgg a yeesal seen xalaat ndaxte yàlla ci kaw yiwam daf ma sas ma nekk jawriñu kirist yeesu yebal ma ci àddina ci xeeti ñi dul yawut liggéey bu sell laay def ngir yàlla ci xamle xabaaram bu baax bi ngir xeeti àddina sell ci doole xel mu sell mi ba neex yàlla mel ni sarax suñu koy jébbal kon nag maa ngi bànneexu ci kirist yeesu ngir liggéey boobu ma yàlla dénk awma fitu wax leneen nag lu dul li ci jëf jaalale ko ci man ngir xeeti àddina jébbalu ci moom jëf na jaarale ci samay wax ak samay jëf ci ay tegtal ak i kéemaan sukkandikoo ci dooley xelu yàlla mi ba fi mu nekk nag yégle naa fu nekk xabaaru kirist li dale ci yerusalem jaar ci gox yépp ba àgg diwaanu iliri sama yéene mooy xamle xabaaru turu kirist fa mu eggagul ndax bëgguma yeggale sasu keneen daloon li ma def nag dëppoo na ak li mi wax ne ñi yëgagul mbiram dinañu ko yëg te ñi ko musal a dégg xam ko naa ñëw seetsi leen fekk ay téq teq ñoo ma téye ba tey waaye nag léegi bay naa sama sas ci gox yii bu may dem Espagne nag bëgg naa fa jaar nuyu leen ndaxte ay ate ngi maa ngi am yéene ju tar ci ñëw seet si leen bëgg na ma nekk ci seen biir ngir am bànneexu sotante ak yéen xalaat ab diir te it ngeen waajalal ma sama yoonu Espagne waaye nag fii mu nekk maa ngi dem nii yerusalem ngir dimbali ji gaayi yàlla yu sell ya fa nekk ndaxte waa masedowan ak waa akay yi ñi gëm fas nañu yéene sàkk ci seen alal yónnee ko ngir dimbali ñi néew doole ci gaay yàlla yu sell yi nekk yerusalem yéene nañu ko te ci dëgg-dëgg bor la bu ñu war a fay ndaxte gannaaw ñi gëm ci yerusalem séddoon nañu ak ñu dul yawut seen gëm kon xeet yooyu itam war nañoo séddoo ak ñoom seen alal kon nag waxtu wu ma noppee ci liggéey boobu teg may gu tedd gii ci loxoy boroom dinaa dem Espagne tey jaar fi yéen te wóor na ma ne bu ma agsee ci yéen dinaa indaale barkeb kirist bu mat sëkk ginnaaw loolu mbokk yi maa ngi leen di ñaan ci turu sunu boroom Yesu kirist ak ci bëggante gi xelu yàlla mi def ci nun ngeen defal ma lii àndileen ak man nu tuur sunu ñaq ci ñaan yàlla ñaanal leen ma ngir ma mucc ci ñi gëmul ci waa yudde te it gaayu yàlla yu sell yu nekk ci yerusalem nangu ndimbal li ma leen di yóbbul dolli ci yàlla may ma ma ñëw seetsi leen ak xol bu sedd nu booloo lu fa kanam yàlla ne yàlla boroom jàmm ànd ak yéen ñépp amiin